asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki am média groupe Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi eh, ginnaaw bu nu sante borom mawlaana tabaraka wa taala julli ci tedd bi sallallahu alayhi wa sallam kon noo ngi fas yéene dikkaat allahu taala ci sunu émission zaadu nisaa il li nasihati al muminina wal nekk jataay boo xam ne jataay fàttalante la ak laayanti biir sunu jataay bii nga xam ne moo jàll noo ngi woon ci solo si nga xam ne julli am na ko solo nekk nga xam ne bokk na ci ponk yi nga xam ne moom moo fondé lislaam te képp koo xam ne danga koo bàyyi su boobaa yow yaa ngi mel ni kuy ma bu diine képp koo xam ne yaa ngi koy taxawal boobaa yaa ngi mel ni kuy jéem a taxawal diine julli nekk loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ëllëg yowmal xiyaam dini jëkka peese ci jëfi jaam bi mooy julli ëllëg yowmal xiyaam dini ci jëfi bi mooy julli bu julli baaxee rek lépp baax waaye bu julli baaxut wala yas naka noonu ñëw nañ ci ni nga xamee ne noonu la sëriñ bi indee julli ci ki nga xam ne dafa bàyyi julli ngir doy dil ko kooku moom ab atteem ci sariya mooy dañ koy rey bun ko reyee nag ab yéefar lañ rey des ko sang des ko sang des ko jullee des ko denc ca armeel jullit ña alal joo xam ne sax amoon nañ ko lu alal ja bari bari donte ay milliards la am bàyyi fi ak njabootam njaboot ga nekk ay jullit kenn ci ñoom du ko doon bokk na ci solo soo xam ne julli am na ko ndax kooku la ko yóbbee loolu mooy bañ a julli mooy weddi julli rek tax mu juyo ak njabootam am ay milliards njaboot ko dunu donn ca milliards ya waaye duñ ko denc ci alal ju nit ñi des ko sang des ko sang desut ko jullee am solo julli am solo gumu am solo tax na ba boo nekkoon ak sa waajur ci biir kër gi walla nga nekk sa doom wala sa soxna wala sa yaay wala ku man doon mu nekk jullit jékki-jékki ba yàgg mu morta génn ci diine kooku dañ lay wax ne bu faatoo bu faatoo doo ko toppatoo doo ko defal lenn lu ñuy defal ab jullit doo ko defal da ngay wooy ay bokkam xanaa ñu ñëw jël ko yóbbu ko waajal ko defal ko la nga xam ne moom lañuy defal seeni bokk xanaa nga dem ba nga xam ne pexe amatu ci te mënu koo seetaan foofu te sax nag loolu boo demee doo ko defal lañuy defal ab jullit dangay dem ci àll ba rek nga yéeral ko daal koy bimax ci biir daal di koy woon ginnaaw mbokk yi loolu la ko waral mooy ki nga xam ne dafa bàyyi julli mortat génn ci diine kon atte boobu bu ñu delloo ca tasawut sixaar des na ko ca fekk insha allahu taala kon tey jii ñu bëgg ñu bëgg dikk ci gën a duggaat ci itti goo xam ne itti woo xam ne lislaam itti woo moom julli ñëwoon na ci lenn ci li nga xam ne moom la nit ñi di def ngànt ngàntul julli te nekkul ngàntul julli rawat na sunu bokki lenn ci sunu bokki jigéen ñi ngir nekk ci xew ak yu ko loolu nekkul ngant ndax ki nga xam ni sax dafa feebar ba tawat lu tawat di métti métti métti tawat di nekkul ngant ci moom mu bañ a julli loolu moo tax ñuy jàngale salaatul marid ki nga xam ne dafa amee tawat am ngant ba mënta taxaw julli dañ ko wax ne ko na nga am ci lu wéeru nga julli ki nga xam ne mën te wéeru na toog ki mën a toog te wéeru kooku na toog wéeru ki mënta toog wéeru na tëdd wetuk ndeyjoor wala mu tëdd jàmmañ wala mu jaaxaan su mënu ci yooyu lenn lu mu ci mën a tëdd rek na ko tëdde waaye yooyu yëpp nag du tax julli wàcc ko na xool nam mën a tëdde muy tëdde te junj ci am xelam ne mi julli mbokk yi su fekkee ne julli dana wàcc dana dana wàcc kenn ngir ngànt ngir nekk ci ay soxla walla nekk ci ay itte wala nekk ci loo xam ne lu jafeñ la lu tiis la kon nit ki bu àggee ci feebar dem ba mënta toog wala mënta tëdd ndeyjoor wala mënta ca tëdd càmmoñ kooku ñu wax ne kon julli wàcc na ko waaye kooku taxul julli wàcc ko teewut dana xool nam ma ne mu koy julli ci am xelam jàpp mu ngi julli mbokk yi loolu importance bu rëy rëy boo xam ne l'islam jox na ko julli waaye bokk na ci solo si li ñuy tuddee salaatul xaw am na julli wala nga ne salaatul eh, wala eh, waaw salaatul xawf mooy julli koo xam ne danga nekk ci fitna danga nekk ci fitna fitna ji nga nekk lu fitna ji rëy rëy lu fitna ji tar tar du tax ñu ne kon nañ leen bàyyi julli gi dama jël nañ leen bàyyi julli gi sax waaye nañ leen bàyyi julli gi ba waxtu wi ba ca ba weneen waxtu ñu fay ko sax déedéet ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolu daana am ñu nekk ci fitna nekk ci xare jàkkaarloo siini noon nga xam ne noon yi pexe yi bu nu amee pexe yi mënuy sàkku ci ñoom mooy faagagal leen jël seeni bakkan waaye nag teewut teewut teewut du tax julli wàcc leen de wala ñu dañ leen bàyyi ba ca sax weneen waxtu ñu fay julli bi déedéet day am noon yu taxaw jàkkaarloo day am ñu taxaw jàkkaarloo ak noon yi meneen mbooloo dem fee joxe julli ga bu ñooñu ña doon jooxe julli ga bu jooxee ba pare dikk jàkkaarloo ak noon yi ña jàkkaarloo ak noon ya ñoom itam dem julli bokk yi su fekkee ne julli dana des na ko tegil kenn ngir fitna fitna mënta paase nga jàkkaarloo ak say noon ñu lay fexee rey waaye nag du tee ñu ne la waxtu yi moom bu mu génn te julliwoo ko bokk yi loolu mata bàyyi xel la waaye solo soo xam ne julli am na ko julli am na ko am na ko solo loolu moo tax dañuy jàngale salaatul istixlaaf mooy julleeg wóotal julleeg wóotal man ngay man ngay ànd ci mbooloo wala nga ànd ak imam di julli ba yàgg imaam ja am ngant ñu ne comme imam ja am na mba ngànt kat nañ leen bàyyi julli gi wala ñu ne nañ leen xaar imaam ji waaye déedéet su booba imam ja day rocc ko ñu roof keneen mu dikk mottali julli ga Euh, su fekkee ne dangeen ngeen ngeen a ànd da ngeen a ànd di julli ba yàgg yéen ñi nga xam ne yéen a taxaw di julli am ci yéen koo xam ne dafa dal dafa daanu dal di faatu ca saase ittewoo koo xam ne lislaam ittewoo na ko julli day tax mu ne comme daanu na moom faatu na moom jeex na yéen continuer na seen julli bu ngeen sëlmali ngeen door a jublu ci moom xanaa kay fan leen may ngeen jublu ci moom nga xam ne dafa daanu nga xam ne mees na koo sawe mees na koo xettali su boobaa des na may ñenn ñu xettali ko ña ci continuer julli ga waaye nag su fekkee ne moom dafa daan rek daal di faatu am solo gu am solo am solo day tax sariya daan wax ne comme faat na ni ngeen continuer sa julli su ngeen jullee ba sëlmal ngeen daal di jublu ci moom dama jëlee ma amuñu sax waaye imam bi nekk seen kanam di leen jiite nga xam ne lu mu def da koy def moom rek ngeen di déglu su ngeen àndan di julli ba yàgg imaam ja daanu daal di faatu ndax dañu bàyyi julli ga wala déedéet déedéet comme imaam daan na faatu day am keneen ku dem taxaw ci barabu imaam mottuli julli ga bu julli ga sëlma bu ngeen sëlmalee door a jublu ca kooke mbokk yi euh, julli lu mat a bàyyi xel la ndax ndax loolu ndax su fekkee ne dana am lenn ngànt loo xam ne mënees naa tax ñu bàyyi julli wala ñu yeexe julli ndax ngàntul ànd ak nit ba yàgg mu faatu wala nga jàkkaarloo ak say noon ñu bëgg la faat ne du tee ñu ne la na nga julli waxtu wi ndax loolu du ngànt kenn ku ci nekk yow ay xalaatal sa bopp bokk na ci ittiwoo goo xam ne jullit war na ko ittiwu julli bàyyi xel ngir dayu bi ko sariya jox mooy li ñu tuddee salaatu safar julli tukki ndax kenn ku ci nekk ci ñun xam na ni tukki lu diis la te it lu métti la lool su fekkee ne ngantal julli dana am ki nga xam ne dafa nekk ci ab tukki àgg ca tukki ba wala sax àggagul ci tukki ba nekk ci yoon wi des na ko may ne ko bul julli wala nga dem ba ñibbi si door a julli déedéet waaye nag dañ koy wax ne ko na nga julli xanaa kay leen la ci oyofal dees na la may su fekkee ni tukki ba nekkul tukki bu nar a yàgg des na la oyofal julli ñeenti rakan yi nga wàññi ko def ko ñaar waaye nag loolu rek lan lay may doon na la bàyyil ba ñibbisi door a fay julli doon na la bàyyil julli ga comme da ngaa nekk ci tukki déedéet loolu moo tax ñu tuddee salaatu safar mooy ittewoo bokk na ci ittewoo koo xam ne lislaam ittewoo na ko julli du ko sàggane ci benn waxtu ci jenn jamono kon ki nga xam ne dafa nekk ci ab tukki sax kooku des ko may mu bàyyi julli fokk rek day julli waxtu ya xanaa lan ko cay may mooy mu wàññi julli yi nga xam ne julli ñeneenti rakaa la mu def ko ñaari rakaa waaye nag du tax ñu ne ko bul julli wala bàyyil ba dem ba ñëw door a julli bokk na ci ittiwoo goo xam ne lislaam ittiwoo na ko julli ak solo sum ko jox mooy li ñuy tuddee aljamoo bayna salatayni mooy boole diggante ñaari julli diggante ñaari julli bu fekkante tey danga nekk ci sa nga dem ci jàkka ja di julli ji asamaan si xiin lool ànd yëngu ànd taw wala mu xiin lool nga jàpp ne xiin wii li ci topp mooy ay yëngu mooy ab taw bu bari moo ci topp wala ngelaw lu bari moo ci topp wala am ngiru moo ci topp nga dem ci jàkk ji bu julli su boobaa sariya du leen wax ne leen dem ci jàkk ji déedéet day wax ne ci jàkk ji ngeen julli ji bu ngeen demee ci jàkk ji du wax ne julli na julli na ngeen julli timis masalan te dal di wàññiku di booloo goo xam ne sariya bëgg na nit ñi booloo ko mën na wax ne na kenn ku ne julli timis rek daal dem daal dellu sa kër waaye nag booloo goo xam ne bëgg na jullit ñi di ko booloo day tax mu wax ne comme loolu am na xañ na asamaan si xiin na yéen a ngi yaakaar ab taw yéen a ngi yaakaar ngelaw yéen a ngi yaakaar ngiro kon li ñuy tuddee aljamaa bayna salaati ni man ngi na boolee diggante ñaari ju yooyu moom timis ak gee ndax ñoom ñaar ñoo bokk waxtu kon euh, xañ na dëgg-dëgg àtte ba nekk ci biir buñ buñ ci dikkee day gën a yaatal gën a gën a guddal wax ji waaye liñ bëgg wone foofu rek mooy mooy booloo goo xam ne lislaam bëgg na ko ku booloo ittewoo goo xam ne lislaam bëgg na ko e, ittewoo na ko julli rawat na nga def ko ca waxtoom kon bu fekkee ne ngantul bañ a julli dana am dees na may ki nga xam ne dafa xiin mu yaakaar taw wala mu yaakaar ngelaw wala mu yaakaar ngiru nga xam ne boo demee këram mën naa bañ a gaaw a dellusiwaat mu wax ko ne kon na ngeen julli seen kër wala na ngeen julli ci timis ngeen wàññi ko dem waaye di dafa ne na ngeen julli gee ngeen boole ko ak timis am na nag na koy boole xam ne détail bi su jëm ngir gën a ndax tey gën a guddal waaye konan lislaam dana may foofu nga bañ a dem ci jàkka ja wala ngeen julli kenn ku ci nekk dellu seen kër waaye déedéet dafa wax ne ngeen def al jamu bayna salatayni bokk na ci li ñuy tuddee xadaaul fawaid mooy faat julli yi nga xam ne fay julli yi nga xam ne daf laa faat te nga amoon nekkoon ci itte joo xam ne xañ na ju mënta ñàkk la ba tax mu faat la ci lu dul sa coobare julli yooyu su fekkee ne des na doy julli ngir soxla wala am beneen itte kon ki nga xam ne nekk na ci itte ba julli ga faat ko doon koy wax ne ko kon man nga bañ a julli waaye déedéet loolu tax julli ga faat ko donte dangaa toog diir bu yàgg boo xam ne julli woo teew xamoo li la li la li la fàtte ay jullit nu mu toll du tax ñu le kon loola bàyyi ko te julli li fi nekk déedéet da ngay julli di julli di julli ba jàpp ne lim bi nga xam ne moo la moo la faat ci ay julli xanaa kay li nga julli day ëpp waaye du manqué loolu lañ tuddee xadaawul fawaid kon importance boo xam ne ak itte goo xam ne l'islam jox na ko julli ite day feeñ foofu kon nag bu loolu lépp jàllee mbokk yi gis nañu salaatul maridi ki tawat gis nañu euh, julli ki nga xam ne dafa nekk ci fitna julli ki nga xam ne ñi nga xam ne julli ba yàgg ñu wuutal keneen imaam ja am ngant ñu wuutal keneen gis nañ ki nga xam dafa nekk ci ab tukki gis nañ ki nga xam ne dafa am julli yu ko faat loolu lépp rek la muy firndeel li mooy ngant ci julli man yombut wala sax ñu wax ne mënta mënta nekk ngant ci julli mënta am kon loolu dinañ ci jàngi lu bare bari ci ci lenn ci ci nit ñi rawat na sunu bokki jigéen ñi lenn ci sunu bokki jigéen nga xam ne neen ko neen ko waxe woon ca njëlbeen ga am na ñoo xam ne bu nu xëyee nekk ci seen xew xew moo leen di gënal itewu dunu julli tisbaar duñu julli takkusaan duñu julli timis duñu julli gee amaana sax nag xañ ne am na ñi nga xam ne xañ na ñoo ca xaw tane ñooñ bu bu gee jotee ñoom ñëpp ñu dajale julli yi nga xam ne moom lañ faatoon daal di ko julli waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci gën a sàggan moom yooyu sax duñ ko duñ ko far julli maanaam julli ko sax nag moom duñ ko itteewoo duñ ko julli sax nag ah, waxuma laa di ko fay kon loolu la ko waral mooy nekkoon si itte joo xam ne da nga jàpp ni itte ji moo la gënal julli gi ki nga xam ne dafa am lu mu def ci ay bëtam moo xam ne ni nga xam ne noonu la noonu la tasaaroo léegi nit ñi di ko xew di ko def jëfin yoo xam ne yu jiggi dayoo la jël loo xam ne danga koo def ci say bët te nangu am ndox laal ca mu gënal la nga def ci am ndox wolif dem joxe suñ borom wala am loo xam ne danga koo def ci sa bopp wala am loo xam ne danga koo def ci say loxo ko def ci say bët loolu lépp nga xam ne lenn ci mënta ànd ak jaxasoo akum ndox tax la nga bàyyi waxtu suñu borom subhanahu wa taala mel ni sax euh, daanaka jamono jooju mën na ne julli amut julli amut ci yow loolu mbokk yi lu ko gën a doy waar amul euh, xew yi léeg mu toll foo xam ne xam ne boo ne def nangam xaraam na boo nu amut ab settantal digg digg digg man lan lan wax ne lan moo ko lan moo ko lan moo ko moo ko waral waaye gis nga añ makka ki nga xam ne farata la su fekkee ne yow mën nga génn sa kër nga dem aji makka te mënta ñàkk nga faatu waxtu julli ci yoon nga xam ne waxtu xam ne danga koy faat su boobaa aj ga daf lay wàcc kon ana ki nga xam ne aw xew rek moom moo tax mu mu nar a faat mu nar a faat bisab lëm wala mu nar a faat ay waxtu ay ay bisi lëm goo xam ne du ko julli kon xew wa lu man doon ak xew wu man doon rek xew woowu bu la wax ne dafa xaraam julli day jàng alxuraan jàng ba àgg ba àgg ci waxtu julli mu continuer ndax baax gu alxuraan baax ak tedd gu alxuraan tedd nga xam ne foo ko takk passé na ko tax na mu sukkandiku ci te wax ne comme maa ngi jàng alxuraan naa continuer bañ a julli ji jàng alxuraan joojee ngay jàng dafa nekk lu xaraam ci yow kon yow mi nga xam ne da nga ne wala ngay ngénte moo xam jigéen nga junuy ngénte wala góor nga gu nuy guy ciital wala leen lu ko nuru nga dem solo ji def loo xam ne mënta ànd ak laal am ndox soo laalee am ndox la nga defal lépp yàqu su booba yow loolee ngay def lu wa xaraam la jëfinu xaraam la bàyyiwuñu ci xel nag kon mbokk yi foofu moom lis ci mën a wax bari na loolu waaye xam naa dañuy taxawlu foofu jataay bi insha allah ba beneen jataay mu ndikki kon nañ jéem som na suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 الحق من باطل أبدته فجار